honorable maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay kooku kan la. man la Pape Maguette Ba. ah Pape Maguette na nga def. maa ngi fi maa ngi toog Birahim Touré ak Fatima Koulibaly. oh mon fils Birahim <laughs> ah Birahim na nga naa la. ñu sant nañ bu baax maa la raw. Birahim maa ngi nii rek sant yàlla bu baax bu ma meree. waaw déggoo ñu ne ma bi. ma bu ma meree bu ñu meree bu <laughs> dama dama bi ma la déggee nga wax. <laughs> Fatima Seye wax dama kontaan bi ma la déggee parce que yàgg naa bëgg nga wax leeral yow. Mm, mm. gis nga ma ma tax wax leeral na la wóor nag. waaw bien vrai dëgg la. waaye nag fii fii ñi koy déglu suma sax dinañ xam ni Birahima tax. waaw mais bienvenue rek bienvenue bienvenue dans nous. bienvenue yow suñu suñu yaay nga suñu xarit na yàlla yàlla yàlla xam na ko wóor na yàlla. Birahima tax Sénégal Sénégal mën Sénégal mën naa wax ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñoo la bëgg un pour cent boobu suñu yoon newul ci moom. déedéet walaay yàlla xam na ko. un pour cent boobu suñu yoon newul ci moom. Mhm. walaay ñëpp samay nit lañ. maa bu baax. alors soxna si soxna si xaritu xaritu sénégalais yi xaritu diaspora bi. tey boo nekkee assemblée nationale yëpp ñëpp yow la ñuy xaar ñëpp la ñuy demal xaritu Ousmane Sonko soxna maam Diarra Fam. yaayu Ousmane Sonko. Ah, yaayam yaayu Ousmane Sonko. yaayu li ma lay mën a wax rek man duma yaayu deuxième tour yaayu premier tour. Ah. man yaayu bi mu méttee laa. alors alors yaayu bi mu ma yaakaaruma dara. Mm-hmm. yaayu boobu la man maa yaayu Ousmane Sonko. voilà léegi léegi léegi booy léegi dañ la wax ne yaay booy léegi. léegi ñun waa leeral mm-hmm. tuddee nañ la yaay booy léegi yaay booy tey euh, situation bi xew nii nii nii xam naa du ma la poser question bi quoi mm-hmm. xam nga ko gis nga ko mm-hmm. xool nga ko tey lan nga ñu mën a wax ci leeral ñu dégg euh, man xam naa situation bi parce que mbay boo nga xam ni Sacré Cœur laa jóge nii nii nii instant bi wax yow. dëgg la te digg bal yi ci digg bal yi laa jaar jàll. Euh, boobu kenn mënul gis. ci diggante boobu. wax dëgg yàlla. parce que dama fa demoon benn sama benn benn xew bu ma fa demoon. Hmm. wante lu metti moo fa xew. Hmm. lu lu naqari. Hmm. parce que Sénégal am na loo xamante ne mérito ko. Euh, jàmm rek la Sénégal xam. ak salaam. ak teraanga ak lu baax. te Sénégal moo ngi li mbir boo ko dee def. te jàpp ni doo ci am. benn benn benn benn benn résultat. nga bàyyi ko. te wuti leneen moo ko gën ma je pense que ñëpp xam nañ ni lii wax dëgg fa yàlla war nañ ko bàyyi parce que xam nga Sénégal daal jàmm rek a fi te man gis naa ni jàmm jooju mi ngi walbatiku te gis nga man sama papa daf ma naan wax benn affaire biraay lu la waay wàll ëppale la ca gis nga lu la waay wàll ëppale la ca Sénégal gis nga bu fekkente dañoo fexe ba nit ñi nekkuñu ci jàmm mm-hmm. ki ñu jiite mooy njëkk a nekkati ci jàmm te pour moom mu nekk ci jàmm bu fekkente ne toog waxtaane réew mi teg ci yoon ba ku ne am jàmm moo koy faj na ko def mhm. kenn du ko ci xoolal kenn du ko ci xeet le président Macky Sall dëgg la kenn du ko ci xeet parce mhm. que Cheikhul Khadim mhm. kenn du ne yaa puus la moo tax mu def ko kenn du ko wax kenn du ne tappet la moo tax mu moo tax mu arrière kenn du ko wax kenn du ne dafa tàppet wala dafa ragal diw wala daf kenn du ko wax uh-huh. dafa war a wut jàmm rek ndax jàmm uh-huh. moo gën jamaa uh-huh. te nit ñi seen bopp yëpp ki na nit ñi ci man fenn fenn foofu ba nekk ci jàmm gis ma ko man de xam nga comme li ma leen wax rek damay mag te ndugg bu juree ndungu law man xeex naa ca ba xeex jotee defe naa deux ans et demi ma téye ko en haleine réew mi ci lu mel nii tey ma am ay doom yu ne yu toll ni man nekk assemblée nationale di liggéey liggéey bu mat mat li ñu doon muy ñoom Guy mari Sagna ñoom Abass Fall ak ñeneen ma di leen yërëm lool di am toujours ci ñoom ma yërmande ndax liggéey bu bu bu buñu nekk di def eh, ci dëkk bi. Hmm. wante daal nañ ko boole ak waxtaan ak ñoom ak jàmm. Hmm. ndax ñun jàmm rek ci la lépp xaj. Hmm. man daal loolu moom mooy sama gis-gis. ci li xew bu ma sañoon président Macky Sall woote. ñu waxtaan ñu waxtaan loolu mooy dëkk. waaw jërëjëf yaay booy xam naa duñ la téye si ligne bi yàgg comme danga nga jógee xew ñu ngi lay bàyyi nga àgg ci kër ga ci jàmm comme si biir bal yi nee nga jaar xam nga yow da ngaa mën a waaf nag. <laughs> non waafu ma de. non maanaam bal yi bal yi moom. bi may génnee bi may génnee ci ngénte li. ah yàlla mi ñu bind seede na ni. Mm-hmm. dañ maa wax man leen man damay dem. Mm-hmm. parce que lii du ma fanaan àll. Mm-hmm. te xam naa ni moom. man buñ ma jàppaatee rek ma dellu ko sa noppalu benn yoon. Mhm. te gisuma ko téye sama oto ndax xam naa ne damay dox sama soxla. waaw <laughs> ah. parce que réew mi aussi mënuñ ko téye kenn du dox kenn du dem kenn du ñëw. mais pour lan loolu kumpa bi am nii. moo indi lii yëpp man lii je le dis et je le crie haut et fort parce que kumpa bi am moo indi lii. Mhm. jàpp nañ président Ousmane Sonko. yóbbu nañ ko këram nee nañ comme lu premier ministre de l'intérieur wax. Mhm. mais nañ ko bàyyi mu wax ak ay militants. su waxee ak ay militants rek. coow li noppalu parce que mm. dañ naan mi ngi ci jàmm mais nit mu loo ko téye boobu ba nëga ni vingt quatre heures ou quarante huit heures ay militants gisuñu ko xamuñu ci lan la nekk dañuy jàpp ni jàmm newu fa dañ ko bàyyi mu wax ak nit ñi c'est normal il n'est pas un résident surveillé mm. mm. procès bi jàllagul kenn neewul ne Ousmane ko kenn condamné ko gisuma sàccul gisuma ko mu fen gisuma ko mu tëj ñu tëj ko donc du ngeen ko bàyyi ko bàyyi mu wax ak nit ñi su ay militants ay militant taxaw. dëgg la. loolu mooy dëgg loolu mooy indi jàmm. dëgg la mooy jàmm bu ko président Macky Sall defee. Hmm. kenn du ne tàppet na ku ne xam na ni. Hmm. du ragal. Hmm. ndax c'est le chef suprême des armées. moo moom armée bi. moo moom militaire ku mu ni taxawal nga taxaw ku mu ni dóor dóor mm. nga tiir mm. kon ku xam na ne loolu mënoo koo yor ba pare dina mm, mais nag dëkk dañ koy négocier tamit. waaw jërëjëf ku tension di toll ñu ne ñu négocier Birahim. jërëjëf maa ngi lay ziar bu baax a baax di lay remercier. yaay bi ñu la woowee a jëlal dégg nga. <laughs> ah dégg nga dégg nga <laughs> suñu la woowee jëlal. jërëjëf jërëjëf jërëjëf yaay bi. merci